salaamaaleykum Sénégal une dernière vidéo rek ngeen baal ma ñu nelawaale ko <laughs> walla Hachim je voulais savoir ndax dina am benn nit bu réussir à me citer ci commentaire yi sept ministres yu mu xam seen tur yu nekk ci walla cinq ministres yu xam seen tur yu nekk ci gouvernement Macky Sall bi bu dul ah, borom nopp yi nu mu tuddati sax Antoine Pape Malick Ndour bolo maanaam ay Aïssata Tall Sall ak kan borom bopp bu ndaw bi du leen sax Ismaïla Madior Fall à part ma ak Amadou Ba à part ñii ma la est-ce que am nga ci am nga yow bi may seetaan mën nga maa limalaat ñeenti ministre yu Macky Sall ak lan la ñuy liggéey mënul nekk beneen challenge bi xamu leen gouvernement bi ñu jiite xamu leen cinq ministres yi mooy ñii ma ñii ma leen limal <laughs> pourtant li ma leer mooy xam ngeen Ousmane Sonko ay xaritam xam ngeen ay doomu ndayam xam ngeen sax ki mujj taayal ay zongolam awsa bi ko mujj ay zongolam xam ngeen ko waxal rek <laughs> fi mi food, fi ah, am nay soxna ñoo koy Ousmane Sonko ki ko mujj jaay forox jaay xam ngeen ko waaye ngeen di bayi. Macky Sall moo leen jiite gouvernement bi moo leen jiite yéen tamit nag gouvernement Macky Sall Macky Sall mi leen jiite pendant douze ans gouvernement actuel bi fi nekk nii te Amadou Ba jiite leen ma ne ndax man ngeen maa limal lu mooy borom nopp yi ah, Antoine am Ousmane Madior Fall ah, Aïssata Tall Sall Pape Malick Ndour ak Amadou Ba mënoo leen maa limalaat yeneen juróomi ministre ak lu <laughs> ak lan mooy seen poste <laughs> ko leh ilaha illallah te Ousmane ki ko mujj taayal ay zongalam xam ngeen ko ki ko mujj wat xam ngeen ko coiffeur bi ko mujj wat ban heure la ko wat ah, ak ñaata la Ousmane Sonko fay loolu yëpp xam ngeen ko xam ngeen ko ñaata kan la mujj jëndee essence moo ko jaay ñaata la ko jaay xam ngeen ko wallaay asim sénégalais yi xam xam ngeen Ousmane Sonko diw yaram bi muy diwoo xam ngeen ko diw bopp bi mi utiliser xam ngeen ko ban savon lay sango xam ngeen ko ban pandan dentifrice lay utiliser ak boros bi mujj jënd kañ la ko jënd xam <laughs> ngeen ko du ngeen bàyyi ni ngeen nekk te xam ne Macky Sall jiite réew mi pas Ousmane Sonko ah yéen tamit nag s'il vous plaît <laughs> waaye Macky Sall gouvernement bi ñoo xorom rek 我呀，嗯呀。